ay ca mbokk yi kii ma toogal nag ndef lañ koy wax di doomu champion di doomu mbër man ak moom ñu bokk dëkk Diourbel xam nga ñun bawol bawol yi dañoo solidaire mënu ko fekk ci école bi dugg fi ba génn te waxtaanu ma ak moom di waxtaan ci wàllu làmb muy mbër di champion di xale nekk ci buntu làmb am talent nekk xale ba nga xamante ne bii dinañ ko dégg nag maa leen ko wax ndef jaar naa la. Mbaye maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci équipe bi ñoom Sousan ñoom Cheikh Nguer ñoom coach di dem ba Diourbel di nuyu sama coach Diourbel sama manager Diallo Ndiaye di nuyu gars yi waa Diourbel yëpp ñoom Mamour Sarr le fou de Ndef Ibrahima Ndiaye ak sama grand Lamine di nuyu waa Parcelles yëpp ñu ne ci jag bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ñoom Daouda Sène ñoom Lasko ñoom Cosaan Diané gars yëpp maa ngi leen di nuyu. mais Ndef sa combat Diourbel dafa yéex quoi da ngaa gëj am non est nekkul ci est-ce problème problème ak mbëri daa mel ni mbëri ñooy daw. ndef am nga ay waxkat ay Mamour Sarr dama leen di dégg ci groupe yi ñuy yuuxu naan dafa fi mën dafa fi mën te avance bu la jox nga delloo ko. non du question delloo sax ñoom lay déglu ñoom Mamour. ak ñoom Père Diallo. Hmm. ñoom lay déglu. Hmm. mais sa combat Diourbel sa combat Diourbel dégg sa combat ak ñoroon na dafa mel ni. ñoroon na kay. ñoroon na de waaye bi daal ñoom Mamour daal lay déglu. lu ñu wax ma def mooy loolu. Hmm. bu déranger ñëwee nga jël. non man ma kenn ñu dul waa sama écrit hmm. sama écrit kese laa bàyyi foofu. Diallo Ndiaye rek. waaw. Hmm. Bébé Balla. combat boobu dafa ñoroon bu la bu yàgg la ñu waroon a bëre. war na Alxuraan. mais mën seetaan nga combat bu mujj bi. non seetaan ma ko waaye dama dama doon gis entraînement quoi. moo teg soog. seetaan ma ko de wax dëgg fa bu ñëwee nga jël ko. instant bi pare naa. dama pare bu yàgg. caméra bi la tiimu pare naa. pare nga pour jël bébé Balla. pare naa pour ñëpp. xale Pikine bi. pour ñëpp laa parel. bébé bi nga xam ne dafa dugg top 5 dafa 6 mois mënul génn. déggoo ma de. billaay walaay bu ko jappee ma dalal ko bagage bokkuñu sax. xanaa da ngaa bëgg mu dugal top 5. dama koy duma ba daan ko. bébé Balla billaahi. bébé duma ko yombul. billaahi dama koy duma. foo teg gën a muus fuuf. <laughs> balla di nante plein. wallaay damaa muus. damaa muus. foo ma laal mu bëri. bilaahi. foo laal ci yaram yi day bëri. féppay bëri. wallaay azim. boo ñu doon fàttali kan mooy sa papa loo ñuy wax. Euh, sama papa mooy maam ko Diané di profité waale sax di nuyu samay papa yi foofu ñoom Marto Diané ñoom Goriam Kital di nuyu gars yi foofu yëpp quoi. sama papa nekk na Diané fële super étoile dëkkoon. non non Super Étoile nag mu ngi dëkk Bundu. Bundu Bundu Bundu waaw mais Bundu sorewut ak Diané. non non taxul mu soree ay quelques kilomètres ay six yooyu rek. waaye moom da doon faral di ñëw suñu kër quoi am pagaay même sama papa tamit da doon dem seen kër. waaw dama ko doon gis muy ànd ak sa papa quoi. carrément chaque jour tout le temps dinañ ànd. Mm-hmm. mais Dakar fii amagoo combat. non Dakar wax dëgg fa yàlla amaguma moom. waaye gars yi ñu ngi dox mais nii lay def rek. Mm-hmm. mais instant bi moom bëgg naa fi am combat. Mm-hmm. waaw. tey sa morom yi nga xamante ne bii ñoo nekk ci làmb ji fii Dakar. buñ la doon jox kan ngay kan ngay soxla. boo bëggee dëgg-dëgg mbëri fi nag sa xaw ma leen. instant ah. man ku ñu ma jox naa naa ci ubbeeku rek. <laughs> yow daal fi mu toll nii fi mu toll nii alleerub gu gumba nga ko quoi xame woo jaj xame woo joor. maa la ko wax de damay bombarder rek di dem. <laughs> non bombarder ko. billaahi commencé ko. nañ ma jox rek bu ma joxee damay xel di bombarder di dem. booy na ñëw buñ daw. ndax leen la alliance la bali. Ndefleng alias Labali. labal door si xiir résumé frij frij résumé faraj faraj wis ci kaay sanc godron ko door mu dagg. wis ci lan. kaani sanc godron ko laal mu dagg. <laughs> alors dagg. maa la ko wax de. mais sa nekkin ci écrit bi parcelle mbooloo naka la dem. xanaa am ak ñëpp jàmm ñoom Cheikh Nguer ñoom Jean ñoom ne ko waaye boo bëggee dëgg-dëgg nag mbir mi métti de. Hmm. neexul de. wóor na am neexul de. <laughs> lu ko méttil yii lépp a entraînement xanaa gisoo gaa li ñuy def gisoo coach bi mu taxaw. sa copain bi nekk sa wet daa mel ni tey dafa ruux. dañuy toog di entraîné ba ma dëgg note bi ne ko gaa yi ñu ngi note nañ taxaw mu ne non non nañ continuer. billaahi wër na la métti na de. waaw mais wut doole yomb. non yombul moom yombul de. bu yombee fii rek bu yombee fii rek day metti fële ca géew. day metti fee mais su mettee fii nag boo demee ci géew ba day yomb. day neex waaw noonu la demee. billaahi noonu la demee. mbër mu ndaw moom loo entraîné doyul mbër mbër sax laay wax en général loo entraîné doyul. en tout cas ñu ngi ci koom tout le temps dañuy entraîné matinal dañuy ñëw fii ci écrit bi cinq heures wala cinq heures et demi comme fi fekkul rek gars yi dañ lay mise à pied teg la fële dañuy ñëpp di profiter di ñaanal ñi nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñoo dem ci mbëkk mi dinañ ñaanal ñu am kayit am ci xaalis bi. yow dégg naa bëggoon ngaa dem ci mbëkk mi. non non man soxlaaguma ko sama papa sax ah. bi bëggul de. dañ ñaanal ñi nga xam ne ñoo dee ci mbëkk mi yàlla xare ajjana ñi nga xam ne dem na ñu am kayit ak jàmm am xaalis ñëwaat ci seen njaboot di dem di ñëwaat bañ a jaar ci gaal ah, jaar ci kaw di nuyu sama grand frère Lamine di nuyu sama papa bu baax baax baax di ñaanal ñëpp jàmm allahu akbar ay ca mbër ndef mi ngi noonu jàmm jàmm sigil da jëndal sa mbaxana mi ngay bandi bandi lu nii yow waay kii kay xaw ma directeur xabaal ma sol mbaxana mi jam Senghor yal jilas maxasim naanu mais dak nam simin a paax ana jam layna jam fa mayu koy gidma roog ah, waa Djilass waa Djilass waay na jam fa mayu hmm. i eh, jam fan la toll man toog naa la gis ci mbabat yi daaw mais ren gis guma la fenn non instant yi maa ngi si wàccaay bi sax hmm. waaw fan yee dama amoon damaa xawoon am blessure waaw dama doon def squat wàcce ak tànk bi nag xaw a blessé looloo tax ma yéex a ubbi ubbi nii waaw mais instant yi maa ngi si wàccaay bi waaw maa ngi si wàcc parce que tane naa bu baax instant yi yaram bi lan lay laaj instant yi bëre rek waaw mu ngi xasal ah, état bi mi ngi fi quoi. gis nga gars yi moom mooy loolu comme nu ma leen di wax rek mujjee teew gën a siw rek. waaw mujee teew gën a siw. moom mënta ne. ah wallaahi. kan moo dàqu bëre si liste simple kan kan lañ ko nommé moo dàqu bëre si liste simple bi waaw. du ordi. ordinateur la ñuy wax de. man la may woowee saafaanu nag. Ah, moo ordi di sol tengaade bi moo tax nga andi tengaade. waaw gisoo ndax moo ma ko sol. waaw waaw waaw waaw sama gaañ la maa ngi koy nuyu au passage tamit borom baax la waaw maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm waaw am na combat di ko ñaanal tamit yàlla defal ko ndam bu seddu guy moom ak Ousmane Gandigal le 25 incha allah ñu ngi koy waaj tamit oui. dafa mel ni drapeau chef de l'état bu léegi bëre woon. ankay woon naa keroog bu ma nekkee kii euh, bu ñu nekkee regroupement waaw pour francophonie bi amoon na lamb 10 millions bu ma bëre woon foofu dañ maa gën woon quart de finale par avertissement. waaw waaw boobu laa mujjee bëre. yee. wax waa Jilaas. waa Jilaas ah di leen kii loxo rek ñu ñaanal ma. Mhm. xam ne jam mu ngi si yoon bi. man moom comme lu may wax rek mujjee teew gën a siw bu ma sampee rek ñëpp xam ne lépp dëgg la. Mhm. oui incha gën a siw rek. mën a yëngal waaw mun a yëngal mun a bëre tamit. Ah? wallaahi. jaajëf kontaan naa waaw ñoo gën a kontaan. amin amin jërëjëf jërëjëf la di profité ñu ñaanal suñu grand bi xam nga moom dafa am combat quoi Thiès Hercule r waaw le 10 maa ngi ñaan waa Diourbel yëpp ñu ñëw mobiliser ci combat laay euh, ñëw mobiliser a mm-hmm. feesal stade bi mm-hmm. daal ñibbi loolu la bëgg incha allah mm-hmm. di féliciter ñi nga xam ne ñoo amoon fi combat ñoom Ganja ñoom Ibou Ndiaye ak gars maa ngi di félicité. ayca gaynde mi ngi noonu air champion la Hercule bu Diourbel ñu ngi koy euh, ñaanal jàmm bu baax a baax mi ngi jëm combat le 10 incha allah foofu ci si di jaxatee borom Diakhaté production moom moo tëgg combat boobu di euh, promoteur ba nga xamante ne bii day génne mbëru Thiès yi ak mbëru yi nekk biir Thiès Hercule ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax jàmm ak salaam.